ndewoy ndewoy ndewoy seymane ndewoy alaykati ka mangalaya loolu entre la woon mais xale bi di Siteu bi muy ñëw ci écurie bi fa la la fekk wala waaw fa ma fekk fi la ma fekk entrem ci Relon Sarr mm. noo ko doon jàngal ndax tey li am li mu am tey jii nii loolu mm. bett la wala loo xalaatoon ni ëllëg mën na ko am ci biir làmb la franchement man personnellement bettu ma bettu ma xam nga nit ki tey dafa am loo xamante ne bu siy dugg rek. am ci benn détermination. Hmm. aussi am ci gëm-gëm bi. Hmm. ak yar bi. Hmm. ak yar bi nga xam xamante ne ni moom la mel. melukaanam. lu mu ci man am du la bett. man Siteu bu waxee sama tur rek dafa nekk maa moom taxawuñu. waaw bu waxee santal rek daa fekk maa moom taxawuñu taxawuleen mais buñ taxee maa moom du jaar sama tur. père rek la may wax père la may wax parce cër boobu la ma jox. te cër boobu lañ joxante man ak moom. Hmm. mos naa rappelé wu bi ñuy ana benn suñuy contact man ak moom taxaw di contact permesu toog permesu jékki-jékki daan ne. Hmm. dafa mel ne mooy contact moom kese. Hmm. fële na ko ah, mu ne ko non parce que Sentène bi muy bëree mbapat. waaw bi muy di bëree combat simple. waaw teg yaag moom benn ngeen affaire am na benn jour euh, muy bëre mhm. billaay wala taale dañ gën estaat gaa naam waaye mais sa rakk bi nekko ñu ngi koy félicité jàpp na ne waaw ndax jàpp na mhm. sama rakk la mhm. ma leen si si waaw am problème aussi tamit mu jox ma cër ba nga xamante ni man sax daf ma dépassé man daf ma dépassé parce que xam respect la ma jox aussi tamit mu nekk nit koo xamante waaw lu mu am. waaw lu mu yor. waaw jaamu yàlla doomu aadama yi ñoo ko moom doomu aadama yi ñoo ko bàyyi ci moom. ndeysaan loolu keroog dem naa seeti Coen si euh, mu seeral ma lu mel comme nga wax. xam nga sa mhm. man ma. dëgg la muy prési muy mhm. max muy mbëri. Mhm. xam nañ ma man amul lu ma ragal a wax. doomu aadama dëgg la te amul lu may wax ci doomu aadama loo xamante ne gëwuma ko. gëwuma ko waaw meluma noonu. ba nekk ba yenn réunion yi bu ma saan am. dëgg bi nga xamante ne nii maanaam mooy bële sa ñëpp. waaw loolu laay wax moom ngay wax parce que waaw yàlla fi ne yàlla fi ne amul nag ku ma ku nemet ku waaw nit kuy taxaw te du ma la bu ma la war a dëgg du la ko wax moom yàlla sàkkagul mbindeef googu parce que man loolu ma sunu borom bindee mm-hmm. waaw man xaw ma laaxa-laaxal lu ma war a wax dama koy wax ma su ma paree ma jaar ci leneen mm-hmm. mais billaahi wallaahi tallaahi man dafa def ay actes yoo xamante ne nii ay actes yu ma marqué la ay actes yu ma marqué la la mm-hmm. te defu ko benn yoon def ko ñaar yoon xam nga da koo répétitif. Mhm. donc xam nga kooku tey bu dee dafa def benn sax mën nga ne xam ah da koo tàmb wala nii. mais loolu jikkoom la. jikkoom la. jikkoom la ni mu mel ni gars yi wax xama ni billaay wala tallaahi man loolu lu ma gis moom la. ndeysaan lu ma dund moom la. ndeysaan moom. lu ma dund ak moom benn jour. Mhm. loolu damay jox benn benn anecdote boo xam ne nii dañu dajee jàmm gën. Mhm. jàmm gën man moom. waaw mu yor otoom mu tëll yam ci man ne ma non père yéegal yéegal yéegal dama doon dem mais dama yóbbu sa kër. ndeysaan ma ne ba ma jël fii oto mënuma la da ngay lang xam rek moom ma a xam naa la da ngay <laughs> <laughs> lang fii <laughs> uh-huh. lang fi ñu naan ey la ngi lang oto yéegal ma yóbbu la mm. ma yéeg ñëw ba ci yow soxla ñëw nga jël bu ma ko dem fenn sax boo ko soxla dama koy bàyyi am ma ci lu ma ci wax affaire boobu daf ma marqué tellement uh-huh. billaay wala tallaahi te dana ñëw entraînement mm. bu xam bu gars di contact nii bañ war a takk gant max na ko jël jël max na ko jëlal sa naka takk gaa mu ne père. waaw mooy préparé combat rek. <laughs> te combat bi moo ci des. semaine la ci def may gaañ affaire yooyu noonu. <laughs> ah mooy boxeur ba <laughs> ma la gaañ yow sama waay nga. mais xam nga moo Quench aussi tamit. waaw. moo commerce fa dañ nekk nit ñoo xam ne ay nit ay nitu dëgg lañ nitu dëgg lañ ay nitu lañ yeneen boo yëpp ah yeneen boo yëpp mais ñoom dañ def ay action tamit hmm. waaw daf may marqué lay marqué daf may marqué xam nga tey sa waay hmm. góor rek moo ma ta seexal ndeysaan góor te hmm. boo yi dañ am couleur googu ndeysaan franchement man amu ci kenn koo xam te ne am naa yow xaar ma yàlla te ñoom ñëpp billaahi wallahi tallaahi ndeysaan su ma sañoon ñoom ñëpp tey fi ñu dégg mbëri magal ñun dégg muy taxee muy Mama Lamine muy Abou Niassé bul laal mhm. ku wen si ku li fay numéro mais même ñoom tamit sax nekk booy yi nga a lamb ci lamb walaay dañu daj su mhm. mu toll tey ci biir lamb mhm. mun a wax ñaar ñetti mbër mbër te doo ci boole Siteu loo jàpp ne moo ko may. waaw mais fulla rek. Mhm. la ak fayda ak gëm boppam. Mhm. ak gëm boppam te aussi tamit ak li mu wan doomu aadama yi. Mhm. yar gi mu wan doomu aadama yi. moo ko may loolu. tey Siteu gën tey mbëri fi nekk tey ñoo ko ñoo ko ñoo ko njëkk bëri fu. waaw ñoo ko jiitu ci làmb mais tey li muy def li muy indi ci làmb. amul benn mbër Sénégal amul benn mbër buy takk ngeem Sénégal bu ko mën a indi. waaw combat bi passé mujj combat bi mujj gis na woon combat bi Papa Sow damay seen départ am mhm. non dama ne lii lii mënul nekk lii mais mhm. yàlla suñu boom rek moo a maye loolu amul benn saay ñun mhm. ma seere loolu mais engouement boobu noonu rek laay gisaat ci booy bi waaw moom laa gisaat ci moom te lu ko raw sax parce que xoolal boo xoolee jàmm gën ba esat gaa yi dañ koy rek ngay gis. dañ koy rek mu leneen la kii sunu borom moo ko may. moo ko may li mu am moo ko may lii. moo ko may aussi tamit ak moom. waaw ak oyof gi mu woon nit ñi xam ak taalibe gi mu woon nit ñi. ak tamit position bi mu taxawee. mu taxawee ca làmb parce que neexul ba neexul mais moom rek moo fi nekk benn mbër boo xam te ne nii. mooy taxaw di kaasal jeunesse bi. jeunesse bi waaw. parce que moom xam na fi mu jógee. xam na fi mu jógee. xam na fi mu dëkk xam na fi mu dëkk. xam na li mu doon. moo tax mu am sañ-sañ boobu noonu. taxaw di wax parce que li muy wax tamit lu mu gëm la. à part moom amul benn mbër boo xam ne dafay taxaw xamat di wax gouvernement bi mais nee jàppale ci na def lii na def la mhm. mais pourtant li muy wax dëgg la dëgg gu wér la dëgg gu wér péng la mais Sénégal tey da ñëw ñu fayal tey benn journée mhm. deux mille cinq cent mhm. boo passé ñibbi sa loo jox sa waa kër wala boo xëyee la ngay ndékkee boo xëyee la ngay paas dem te fii ñaata entreprise ñoo fi nekk wallaay bari na ñaata entreprise ñoo fi ne. Hmm. sa waay ay ay journalier journalier dafa dafa amatul. dëgg la amatul war nañ mën a jox boy ay contrat ñu am ay contrat benn da leen di permettre xam ne ñu mën a liggéey. Hmm. mën a dimbali seen i parents. bu ko defee semence bi ñuy wax wala yenn agression yi ñuy wax ne day hmm. wàññeeku. day wàññeeku baax day day dañ sax du moom day wàññeeku mais day dañ complètement mais voilà. mooy loolu. mi ngi jëm ci wàccaay digganteem ak Papa saw le 6 novembre ci arène nationale. demul nañ ba war a bëre diggante bi li fi xew gis nga booy combat bi mujjee averté. combat bi taxawaan na pour leeral noo gisee état wu Papa Sow ak état wu Siteu. waaw fi mu toll nii moment mënaguma ci dara parce que gisaguma Papa Sow. xam nga bi combat bi taxawaatee. ba léegi waaw bu combat bi é o gisaguma Siteu aussi tamit carrément mhm. xam face. Mhm. mais. di ñaanal Papa rek xam nga di ko ñaanal yàlla may ko wér ak wérle. xam nga ñu préparé si jàmm. ba mhm. jour si. Mhm. waaw di ñaanal Siteu man gëm naa ni. waaw dama koy wax chaque jour mais mhm. xam damay jàpp ne des fois. waaw gars yi dañ ne noo kii dafa wala xam nga wala wala wala xam nga. bu booyam la moo tax mi waxee noonu. ndeysaan damay wax chaque jour ne Siteu bëreegul. bëreegul. ak li mu mën a lépp. moo man jàpp naa ne bëreegul. bëreegul dara quoi te ñi ko xam dëgg. xam ko bi muy doog a door. matul sax 60 kilos. ndeysaan ba ni mu toll nii xam nga tey di dugg ay cent vingt. Mhm. xam nga mhm. man jàpp naa bëreegul. bëreegul parce que bëre bu nekk ci moom lépp. Mhm. bëreegul. bëreegul mais jàpp naa ne Siteu Siteu bu nekk Siteu bu nekk sans forme dëgg. ku di Papa Sow sax mën na laa mais Papa Sow dafa doy doy waar. non Papa Sow xam nañ ko. waaw waaw wala Lamsar xam nañ ko. bu baax xam ngeen ko yéen. ko bu baax. ndeysaan duggoon na Lamsar de. waaw duggoon na Lamsar. waaw mais ni fi mais woon neexul. neexul woon waaw neexul woon digganteem ak nees. waaw uh-huh. boobu neexul woon. Uh-huh. lamsaar gi la rek. waaw lamsaar gi la xam nañ ko bu baax. Ah. xam nañ ko bu baax. Mhm. ko bu baax te nañu war a préparer Siteu. Mhm. xam nañ ko. ndeysaan di ñaan yàlla rek suñu borom bi mii moom lépp te kattan lépp. war a préparé Siteu. Ah. non même bu ñu xeexee sax dana métti Papa Sow. dana métti Papa Sow. waaw ah. malgré mën na xeex. waaw ne xam ne attaquant la. waaw mais. waaw dafa am préparation yoo xamante ne boo ko préparé xam nga mbër boo xamante ne xam nga yaa ko suut un mhm. ne nii xam nga même bu même bu la daxee xeex. waaw nga préparé rek ba say loxo gaaw wala nga xam nga am benn vivacité bi. Hmm. waaw xeex bi du la sonal ci moom. du la sonal ci moom taa saa bu yëngoo da nga koy gis. Hmm. am na solo pour ñu avancer taa ñu taggatoo kan mooy Père Max Mbargane hmm. ci biir écurie Lansar débutant mu yar leen ngeen nekk ndaw. ba tey fi làmb tollu tey. waaw Père Max sant Père Max. <laughs> ma question ma. Père baax yaay <laughs> <laughs> maa ngi koy ah. siyaar baax a baax laaj nga ma question bu ma sawar a tontu. Permax mooy Lamsaar. Mm-hmm. ndeysaan. Permax. Mm-hmm. mooy Lamsaar. mooy Lamsaar. mun na wax Lamsaar te doo si tudd Permax. déedéet waaw mun na wax Permax te doo tudd Lamsaar. wallaay ndax lépp mi ngi basé lépp mi ngi doore fii terrain Ndiassé. terrain Ndiassé. terrain bi nga xam ne boo tollee fii da ngay seen terrain bi lépp démarré. Mm. mu yàgg bëgg làmb te amagul écrit. te amagul écrit. yàgg a tëgg làmb ay mbër du jugee fu ne. Mm-hmm. di ñëw di bëri fii. ndeysaan seetaan naa fi Bombardier. moom ñu nekk ay booy. ñoo doon jëli CV yi. avant làmb di commencé. seetaan fi mbër yu bëri. Mhm. seetaan fi gaay yu bëri ñëw bëri si Balla Gaye mii. Mhm. waaw seetaan fi gaay yu bëri. donc Père Mass Mbagaan bu demee ba koñam am écrit. waaw loolu waaw loolu. Mhm. loolu du lu bette quoi. du bett gaay waaw loolu du loolu warul bett kenn. warul bett kenn te comme nag da ngaa bëgg làmb doon tëgg làmb. tey ba nekk ménagère. dugg si làmb. ba nekk ménagère sa koñ amul écrit rek mhm. non war nañoo xolaat nga dem ba yor mbër yi nga xam te bi daanaka ñu ëpp coow biir làmb waaw mais sant yàlla rek ndax coono jëm daj la waaw coono jéeg daj la coono jëm daj parce que permax dafa sonn ci làmba ah. ndeysaan dafa sonn ci làmb ñun bi ñu doog door mhm. boobu fekk moom nekkagul ménagère mais dafa daan jël ay mbërëm mhm. dénk leen man père Pala Diop moom a yoroon. Pala Diop noonu Fëgala noonu même neef. Mhm. père Pala Diop moo ñu yoroon ñun ñëpp mais demee nag ba am licence ménagère am. si mhm. lañ ko père ñun kenn dootu ñu engagé ku dul yow. parce que mënoo am say bër. Mhm. keneen di leen engagé. te ñun fi lañ dëkk buñ buñ la soxlaa nii sa kër la ñuy jubali direct mhm. waaw amul woote père fan nga nekk wala lii buñ demee sa kër fekk ñëw fa danañ toog xaar la mhm. ba nga ñëw donc te ñu yow dëkk kenn duñu engagé kuréel yow nekk suñu père boo xam te nag franchement mhm. ku jàppale lamsaar ah. ku jàppale lamsaar ku jàppale mbëru lamsaar donc moo tax xama ñun saa rek dañuy xama dañuy am ferte ci moom waaw ci moom waaw coono gi mu ci làmb ndax jàpp nga fi mu toll euh, maanaam euh, yëg-yëg bi war a am ci mbëru lamsaar ak ñi nga xam sonn si ñoom. jàpp nga ni mi ngi koy mi ngi koy mi ngi koy kii wala. waaw waaw ñun moom xam ne ku nekk nag sa bopp nga mën a wax quoi. parce que euh, li muy déggante ak yeneen gars yi man du ko xam. Mhm. donc te du ma ko sax laaj franchement parce que loolu moom ak ñooñ la. Mhm. mais ñun moom man ak sama rakk ak xam ñi nga xam te ñoo ma jege. Mhm. waaw ñun moom lépp lu ñu war si moom ñu ngi koy def. ñu ngi koy def waaw lépp lu war si ñun parce que xam nañ fi ñu jëlee. Mhm. te lépp lu mën a doon tay rek moom moom ñu ko def. même bu demee ba am na ci wàll. am na ci wàll am na ci wàll. parce que waaw moo ñu yar. moo leen yar moo ñu yar donc mhm. lépp lu ñu mën a doon tey rek. Mhm. te nit warul fàtte démb. dëgg la même boo nekk même boo nekkatul ci làmb nekk ci leneen xam nga ki nga xam ne moo la ba nga nekkul dara. ba dem tey xam ngay tukki di dem di ñëw. Mhm. xam nga waaw war naa war nga ko mën a gestu. a ñun yàlla def na ni waaw dañ mhm. am coloré. si ñi nga xam te ñooñu yar démb. Mhm. ba tey ba tey soog a ñëw ba ñi nga xam te ne ku ci mel ne maam Thierno maam Thierno Niang kooku moo ma jàngal métier. jàngal ma métier ba pare aussi tamit xam man dugg ci làmb muy mhm. mu doon bàyyi léppam ndax man waaw di voyage fu ne di dem fu ne mhm. ba ma ñëwee cëpp la lendemain dama dem ba këram seeti ko parce que loolu moo ma war mhm. te ma dem seeti ko di ko nemmeeku te dañuy déggante chaque instant waaw ku ma déggantewul rek yàlla xam na damaa amul sa numéro waaye sa numéro damay déggante yow malgré que sorante nañ te loolu mooy rek loolu mooy couleur gi parce que nit ñi tey mënoo jox lu amul mais nga dalu leen yëg-yëg bi dalu leen cër bi. waaw loolu am na solo. Père Alioune Diop euh, moom tamit sonnoon na ci yéen. <laughs> diggante bi. Hmm. fi ngeen voyagé wàññeeku na ci ginnaaw hmm. loolu tamit. waaw kooku suñ papa jooju dañ koy ñaanal rek. mais wu dëgg yàlla. fekkee wu coono écrit bi. loolu bokk na ci ñu si lu ñu gën a marqué. Hmm. koo xamante ne nekkul mbër. mais entraînement njëkk. dëgg boo ñëwee entraînement. 16 heures 15 heures dañ boo ñëwee koy fekk. ba gars yi ba ñibbi mu doog a ñibbi. mu soog a ñibbi yor nañ njabootam. yor nañ njabootam. Mhm. dëgg yàlla mu nekk tamit loo xam te ne nii lu ñu tiis mais nag suñu borom bi kenn du xëccoog moom kenn du xëccoog moom walaay waaw yàlla moom bu soxla waaw bu mën a soxla ak foo mënte soxla da ngay ñàkk da ngay ñàkk waaw di ko ñaanal yàlla suñu borom bi yàlla na suuf sedd ci koom amiin njaboot mu fi bàyyi yàlla teg yàgg seen loxo dëgg yàlla mu nekk suñu papa joo xamante ne nii mhm. non équipe Lamsar ko jooy ko jooy ko tax ñu jooy ko mooy mhm. fekkeewul lu bari fekkeewul lu bari waaw lu bari te coono jëm tag ci ñun ñëpp waaw amoon nañ mbébét ci moom. waaw nañ mbébét ci moom mais yàlla def na ni. yàlla mooy dogal ba waa njaboot ji fi bàyyi. Mm-hmm. seex nañoo ñoom jàmm joo xamante ne. Mm-hmm. tey ba ci doomam Abdou Abdou Diop. tey suñu kër fii amul kër gi ñu nii. Mm-hmm. ñu toog nii amul benn fer bu ñu fi takk. te moom takku ko te moom takku ko ndeysaan macha allah mu nekk loo xamante ne nii xama waaw loolu rek doy na cër la woon. man ak ñu xamam ñun ak ñoom parce que tey. Père Diouf fii la dëkk. Mhm. ñoo doom ñoo fawoon doom màggandoo kon eh. kooku suñu papa suñu papa mhm. donc moo tax waaw bii loolu amee mu nekkul lu ñu tiis trop. waaw ñu jooy ko jooy ko trop parce que waaw daf ñu jege woon nag. nekkoon suñu papa nekkoon suñu xarit. Mhm. waaw mais dañ koy ñaanal yàlla suñu borom rek yàlla ko yàlla teeru njëgg la yërmande. amiin si barki alxuraan. incha allah léegi santel lan laa loo bëggoon a wax te waxu ta laajuma la wala temps ñuy tàggatoo. waaw lu ñu bëggoon wax mooy waaw daanaka wax nañ lépp mais waaw damay wax rek démbale parce que tey suba maa ngi doon waxtaan ak moom. Mhm. démb même démb maa ngi doon waxtaan ak moom. kon mhm. dama am benn jarbaat boo que. Mhm. koo xamante ne bi muy nekk xale nga naan ànd ak moom. dëgg la di ko yóbbu xam nga ngay bàkku muy bàkku ci côté bi. xam nga beneen boy bi muy sama jarbaat bi toog. ndeysaan xam ngi waaw bëgg nañ daal waaw parce que lamb la def objectif am. donc ñu koy ñaanal yàlla suñu borom bi xam nga bëgg a yegg ci lamb. ñaan nag fa yàlla yeggale. Ah, di ko encouragé nag di wax nag mu ngi dugg ci ah, ba ma ko yëgee. Hmm. Hmm. wax. ma mu demee ba ma affaire bi commencé nag daw sama nopp ku leen si woo ma ma. ma woo ko moom nii. Hmm. ne ko bis boo amee temps. am jot pour mun ma déglu. nga woo ma. nga ñëw waaw mu woo ma ma ne ko lenn da laay bëgg nga ko wala wala xiir bi wala. amour rek moo dugal amour moo ci dugal wala riiraay bi moo ci dugal. Mm-hmm. mu xam ma ne ma kaar man dama bëgg làmb. dafa bëgg làmb. dama bëgg làmb te dama ci bëgg def loo xam te ne nii. Mm-hmm. waa defoo luñ ko ci woon. ndeysaan ma ne ko waa baax na bisimilah. Mm-hmm. donc ñun ñu ngi sa ginnaaw. ndeysaan loo bëgg dana ci nekk. taxaw ci baax a baax waaw nag xam nga moo tax ma bëgg. Ah. xam nga waxtaan naa ci démbale ñu gën ma ko jàppale. incha allah moom dañuy ñëw spécial. pour jël ko. incha allah ci kàttanu yàlla waaw loolu moom waaw loolu moom dana ma neex trop dana ma neex trop waaw beneen bi mooy xama di nuyu waa équipe lamsaar yëpp di nuyu mbër yëpp mbër buñ fi mbër buñ tuddul rek. waaw mhm. ñu ngi jégalu. Mhm. di nuyu sama gars yi rawatina mbër yi nekk à l'extérieur. waaw ku si mel ne Nees Fëgala. Matar Gueye super étoile. Mhm. ak Pakala junior Baye Ndiaye. mais daa mel lamtaar xaaj bi yëpp ñu ngi foofu de. waaw waaw waaw waaw <laughs> daanaka waaw daanaka daanaka ponk lépp tudd nañ mais xam nga tamit lam dafa dafa metti xam nga boo yoree xam boo yoree kër yor famille. yor ay doom xam nga. yu bëri dootoo ko mënati. dëgg yu bëri dootoo ko mënati donc xam nga da ngay daw pour sa njaboot. donc te bu la yàlla suturaal feneen foo xamante ne Sénégal la metti waaw dëkk bi dafa metti dafa metti xam nañ loolu dafa metti moo tax xam rek gars yi dañ leen xama gars yi dañ leen comprendre bët bu ci tukki toog rek dañ lay comprendre dañ lay comprendre ne xama waaw situation moo la obligé quoi waaw di nuyu nag xama di nuyu sam doom nday Tidiane Faye Tidiane Faye di ko nuyu di ko char bu baax a baax a baax a baax di char suñu waa kër ñëpp sam waa kër waaw di char samay doom waaw di char sama soxna di char aussi tamit xama sama gars xam te ne ñoom bàyyi Paris ku ci mel sam patron Pierre Euh, comme gars yi may entraîné saal foofu yëpp parce que waaw malgré bàyyi nañ bàyyi nañ lamb mais hmm. teewul entraînement lundi au vendredi dañuy entraîné même défense fois sax weekend bi voilà si on a un peu de temps dañuy dem entraîné di parce que loolu hmm. moo nekk suñu dara donc sport moo nekk suñu yaram dañuy entraîner dañuy pousse comme gars yi ah, dañuy pousse comme bëri ni ñuy poussé waaw mais loolu lépp rek xam nga parce que sport moo dee suñu yaram waaw di nuyu sama gars yi yëpp foofu ah di nuyu bàyyi sama rak hmm. Ali Mbaye xam nga di nuyu Pierre Assane Sam Cedric lá ah,

waaw jërëjëf Kaada moo la jox loolu. waaw mais kontaan nañ ci ci trop xam nga di leen siyaar di leen ñaanal encore une fois. Mhm. waaw yal na bi dem ba nekk télé. incha allah si barke Alxuraan ndax Dembélé franchement. waaw mhm. mérité na ko ndax dafa sonn ci làmb dafa yàgg ci ba ma koy xam boobu bëreegu maa ren. ndeysaan ndeysaan waaw boobu ñu ngi ci mbapat mu yàgg mhm. ñoo topp ci mbapat. mu xam ñu nag bu baax. ndeysaan waaw lu mu la wax ci mbër rek xam na ko waaw parce que dafa yàgg ñoom. dëgg waaw di ko char bu baax a baax a baax. am na solo waaw di char gaa yëpp nag. jaajëf waaw waaye bëgg naa ci yow ah. bëgg merci beaucoup.